salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet KM TV KM Info mu mel ni ñi ngi toog ak euh, sunu jëwriñ Massamba Diop di jëwriñ ci liggéeyu Xidmatul Xadim Touba Kër Moussa ba pare wëlbatiku bokk nekk ci invité d'honneur yi comme ni leen ko faral di waxee am na ci ay membre yoo xam te ni dañuy bokk ci liggéey bi waaye dañuy amaat beneen taxawaay boo xam ni. day day day dolli ko waa taxawaay bi xam te ne amoon nan ko ci liggéey bi Massamba mu mel ni bis bi yàgg nga koo teewe yàgg nga cee bokk ci ñi koy liggéey ñu ko sos bokk yàgg cee def sa alal ba yàlla dogal mu toll fii mu toll kon ñàkkul ni am na kàddu yoo xam te ni war nga koo dolliwaat mu jëm ci mbooloo mi bisimilah. waaw bi maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki taalibe yëpp. di rafetlu taxawaay bi lii am na solo foo ko takk paase na ko di ñaan yàlla sunu borom rek yàlla may nañu yàgg di ko fekkee te at mu jë mu ñëw rek gën a kawe mi weesu ndax liggéey bi Sëriñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la jëm wax dëgg yàlla sama xol sedd na lool ci taxawaay bi di sant bu baax murid dëkk bi rek xam ni. am nañ laxasaay liggéeyam du Touba xaaruñ ci kenn lu ci xale tuut tuut tuut am na pas-pas boo ne boo koy xool xam ne kii ngëm-ngëm lay doxee ndax taalibe kon maa ngi leen ñaanal yàlla sunu borom yaa yokk seen taxawaay ci barke Ahmadul Xadim man nag dama fay ñëw ci jiite ko mu jiite safari dëkk bi ñu jox ma seen kàddu du ñëpp mën a ñëw toog fii maa ngi leen di yëgal ni chauffeur yi sant nan yàlla bu baax sant am nan am nan am nan am nan yëg-yëg moo tax euh, barkeelu nañ ci loolu ñu yónnee ñu ngi koy xeeb trop li ma la mën a wax daal mooy sant nan yàlla bu baax kontaan ci taxaw bi ñaan yàlla saa bu ko fekkee rek yal na yàlla dogal mu gën a kaw ci barke Ahmadul Xadim waaye sama xol seet lool yal na yàlla sama borom gën a yokk lii ba mu gën a kawe njort ñu ko jiite di sant baax jor moo jëfal ak ñi mu àndal ndax am na taxawaay am na pas-pas te xaarul kenn jooni Sëriñ Tuubaa di leen ñaal yàlla sunu borom yéen ñi ñëpp yàlla mayeen gudd fan ànd ak wér bu ci ko sax dàkk ànd ak ay kawe kawe kawe barke Seexul Xadim yaakaar jërëjëf jërëjëf Massamba di wax chauffeur yi mbokk chauffeur tamit ni seen yónnee agsi na seen ndawit agsi na ma xet xet doo mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla seen GIE bi yaa nga dem ba bokk ci GIE gën a màgg ci àdduna bi jërëjëf jëf jërëjëf jëf incha